7 TV ngi bëggee ñëpp di ziar ñëpp di ñëw gën seen prochain acteur gën a fës si journée tey bi tombé le lundi 26 juin dañu commencé force léegi officiel na Jackson juróom euh, ñettaatu contrat Chelsea ba 2031 transfert ngi dikkee Chelsea 37 millions ba léegi foofu sa Chelsea Chelsea dàkk nañu offre bi nga ànd nak Manchester United defoon nañ ko pour euh, kii di Mason Mount mu tolloon si 64 euh, millions journal Bizot Times moo ñu xamal Manchester United intéressé nañu si kii di Moisés Caicedo nekk milieu terrain Brighton bi nga xam ne nag jam ni club yi su Arsenal ak yeneen yi euh, club bëgg nañ ko signé Manchester City ñu ngi ciblé kii di Achraf Hakimi di latéral foofu sa Paris Saint-Germain kon nag kii di Pep Guardiola di entraîneur City bëgg na ko signé su fekkee nag Kyle Walker day dem waxtaan ba déggoo am na si diggante Manchester City ak euh, Guardiola nekk foofu sa Leipzig fu mu toll City Leipzig la war a waxtaanal ngeen nag am ak ñoom accord waa Manchester City yónnee nañu offre bu toll si 90 millions d'euros waa Leipzig ñu ngi doon laaj 100 millions d'euros Justin Kluivert na si club bi di euh, AS Rome signé ak club bi di euh, Bournemouth foofu sa Angleterre kon nag ki di Kluivert signé na contrat bu gudd ak club

si salaire bu toll si 20 millions ak contrat bu ba 2026 fu mu toll nii nag Inter de Milan la war a waxtaanal ñi nga xayma transfert bi si 23 millions beneen joueur bi nga xam ne Al bëgg na comme joueur Atlético bi di Antoine Griezmann Antoine Griezmann clause libératoire mu ngi toll si 25 millions Espagne la ñuy jàll club bi di Real waa Real nag ba léegi ñu ngi euh, topp kii di Kylian Mbappé waa Paris saint lu ëpp loolu ngir naka mën a am Kiddi ak Kylian Mbappé ñu ngi pare pour fay deux cent millions d'euros ak vingt millions d'euros bonus di fay la Lamari di yaay yaay si Kylian Mbappé te di agent moom moo jot na waxtaan ak club bi di euh, Real Madrid. te nag mi ngi waajal waxtaan ak waa Qatar ngir nag ñu mën a matal transfert bu Kylian Mbappé foofu sa Real nu mu gën a gaawe waa Real nag pour wàññi xaalis pare nañ pour dugal seen latéral bi di Ferland Mendy mi nga xam ne nag Paris Saint-Germain bëgg na ko Ferland Mendy mi xayma prix si 40 millions d'euros Vinicius Junior bi nga xam ne nag prolongé woon ak Real lu yàggul dara fu mu toll bi rek moo des Atlético de Madrid mi ngi ciblé ñaari milieu terrain di Marco Verratti nekk ci club bi di euh, Paris saint ak Franck Kessié di milieu terrain foofu sa Barcelone kon na bëgg nañ leen na signé de Marseille ak kii di euh, ak Atlético ñoo war a waxtaan euh, Paris Saint-Germain kon waxtaan ba déggoo si lépp fu mu toll nii Paris mi ngi war a waxtaan ak Bayern Munich si fii ak fan yii di ñëw waa Bayern Munich ñu ngi laaj cinquante millions d'euros ak ay bonus pour bàyyi seen euh, latéral bi dem Marcus Thuram si club bi nga xam ne nag soxla woon nañ ko yëpp moom si club bi di Inter de Milan la bëgg a signé kon euh, ñi waa ko di ko topp waaye nag moom si club a signé mu ngi war a jóge si club bi di Borussia Mönchengladbach waxtaan ba déggoo am na si diggante Juventus Turin ak kii di Timothy Weah bu Lille fontoon li nag Juventus ngi war a waxtaan ak Lille transfert mi ngi war a dikkee Juventus de Turin 12 millions de dollars championnat Sénégal résultat match yu am si ya 23 journée yi si ya Ligue 1 bi Sonacos Linguère bu Saint-Louis moo ko door ñaari bal si ya benn AS Douane door a Dakar Sacré-Cœur benn bal si ya dara Guédiawaye FC Teungueth FC door ko benn bal si dara Sens Excellence ak Jàmbaar dañoo nul ku nekk dugal sa morom ñett bi Stade de Mbour nul ak AS ku nekk dugal sa benn bi classement Ligue 1 bi après vingt a journée yi Génération Foot moo jiitu ak euh, quarante sept points Diambar deuxième quarante deux points troisième Casa Sport euh, trente huit points ak euh, ñaari match retard résultat match yi doon am si Ligue bi si vingt quatrième journée yi Dem Jëf FC dafa nii la ak Walidaan kenn dugalu sa morom bi Ñambur nii la ak Thiès FC kenn dugalu sa morom bi AG Rufisque ak Duc dañoo niil ku nekk dugal sa morom benn bi Port Dora Mbour dara. tey si lundi bi su 17h jotee Kër Madior dina laale ak HLM bu Dakar Amitié FC am jamono Fatick Wakam am Oslo foofu la ñuy amale xibaar yi di leen jox dig daje benn yoon si ne xibaar di leen ñaan ngeen amee activer cloche notification pour jot information yi.